waajo takk waaw maa ngi maa ngi def recherche jamono bi waaw ah. comme man maa ngi wër di takkal nit ñi instant bii nag wax dëgg yàlla taxaw naa pour takk nag waaw ah, yaa ngi def lu après gàmm laa ko bëgg waaw ah, Modou moom bëgg na ñaareel quoi mi ngi wut après gàmm après gàmm kon gars yi mën nañ dugal seen candidature maanaam man su ma gisoon semaine bii su ma gisoon nii après boo gisoon semaine bi après gàmm nga takk. incha allahu parce que man damaa bëgg bu ma génnee ci yonent bi hmm. dugg ci ah. gannaaw Seydina Muhammad. Hmm. yonent gannaaw yonent bi soxna. yow ñëwal man de pare naa ci man da ci sama ñaari laa yem. te yow xam ay Aïcha Miss ak Aïcha rek deux femmes ça suffit Aïcha mooy dernière mooy deuxième et dernière femme. déet man tout le temps deux rek Aïcha. Aziz mooy deuxième et dernière Miss mooy aaw Aïcha mooy ñaareel foofu laa yem. néew ma gàmm déwén rek fa yem xale bu ndaw bu tuuti bi bébé de deux ans bi mool wu ndaw wi oh. xale bu tuuti man ki ma yor vingt deux ans la Aïcha day nam ba léegi di ay see ay vingt deux ans la am la mool wu ndaw la ay sa maanaam año la año de lee la miis mooy aaw buuru këram kër gi miis a koy gérer cent pour cent ñëpp a ngi lekk ñëpp a ngi naan miis daal mooy soxna faa wadd wele bu doon murit la da nga naan mooy soxna jaara waaw ajaratu miis njaay nogay kër gi mi koy gérer gaa yaa Waouh, mais mais ngi dressé bu ni ay a fi ne ay dañ koy ku bëgg sa soupe. Euh, soupe de poulet crème fraîche crème fraîche petit suisse A quoi et d'autre et fromage blanc et fromage blanc fromage de Paris ou d'Espagne pâte chinoise pâte chinoise <laughs> on dirait qu'il y a des petites crevettes à l'intérieur ouais ouais ouais oh ça c'est mi-chouchou. c'est michouchou c'est mignon Gamu dañuy bégee déggoon na bi yonenti bi juddoo til kan mo doon sam lolu dañ la paix sax dafa amone ci les animaux. wax nañu ni kérok bi Seydina Muhammad kane adina ah. ci la gaynde daw ba dajé bukki. waaw ñu safal té ñom ñaar. Mhm. ku la laaj sa morom lu xew tay ba jamm am mu ne ko sangu adina ak alaaxira judd. kon bok ci weeru yonenti bi. fokk ñuy bégee di kaf di rétat bég leen kaf reetaan leen féexal leen seen xol yi man Abdoul Aziz Ndiaye taalibi Serigne Abdoul Aziz Al Amin doomi Serigne Babacar doomi Seydil Hadji Malick man de damay kaf damay bége de zéro stress je fais du bége ci weeru yonent bi lañ nekk nag ñàkkuma fayda ñàkkuma fulla waaye damay bége de yonent bee ko jar kontaan leen kontaan continuer maanaam li daal nii lay demee saa fukki fanu burdu yëpp daal euh, bu ñu jugee ca jàkka bu ñu ñëwee fi dañuy reer ajaratu Miss Ndiaye day teg reer yi dressé table yi gars yi lekk naan non Miss la moo moo moo Miss la moom mi ngi topp trois affaires yi laa ilaha illallah xam nga ne boo amee laadum bu ni miis am año bu mel ni ay sa yow na maa ngi ci direct mi li may wax ragalu ma dama ne boo amee laadum bu mel ni miis am año bu mel ni Aïcha doo ci yem looy wuti leneen Seydina Muhammad rasulullahi talaa béer talaa béer wex tal bu di wex sangu jamono isusu susu rew mi daal soo amee laadum am agno yem ca soxlaatuma soxlawuma azawat soxlawuma baali Pul pul so soxlawuma pare parana xaru Casamance nag bul jege moom kur kur xar yu gàtt yooyu ndaamal gosaas yi te am karaw moom la ñuy kur kur yàlla bu muy xaru séeréer nag bari couleur maa la ko wala pël pël wow koŋ boo amee laadum am añu am lool lool lool la ñuy wax femelle bu ndaw nga xam ne lawtan la ku ko appal juum laaxar <laughs> wa kay <laughs> moodu nga ni leen <laughs> moodu mu réew mi daal c'est le bégué nous comme ça ici après le bourdou bu ñu jàngee suñu bourdou ba pare sali yen ba mu jeex ñu ñëw fii reer kuy lekk jën ñëwal kuy lekk mouton ñëwal kuy lekk veau ñëwal kuy lekk supp ñëwal ku bëgg caakiri ñëwal ku bëgg laax ñëwal ku bëgg kuy végétarien ñëwal ku bëgg salade concombre tomate fraîche euh, euh, tomate concombre Et quoi d'autre Il y a beaucoup de choses ici. Hein? Chakri Koubogri Blanc vient, couscous marocain, vermicelle. Tout c'est ici après le bourdou. Il y a couscous marocain, il y a vermicelle, il y a soupe. Il y a soupe veloutée de poulet. Il y a michui, il y a poulet il y a poisson, il y a crudité. Vous voulez, vous voulez que je vous montre le poisson Ça, c'est le mushu. Mais attends, je vous montre le poisson de Miss. y a poisson ça c'est pour les végétariens ceux qui ne mangent pas de la viande ceux qui veulent du protéine vous voyez euh, cher samou. léegi naa ko Cheikh waxal ñu doon béy ci yonent bi rek ñu ah. Fadam. na muy tegal man man lekk eh, comme. Fadam à table. Eh. Fadam supp bi nu mu tudd. nu boulette euh, jàppatuma ko daal. velouté de poulet. velouté de poulet waaw. mais param yow looy boole ne yàpp ak jën wala. waaw non non jën jën rek. ah tey poisson ngay lekk. waaw lekk mu yàpp. lekkoo yàpp. non fii moom Aziz. ginaar yaa tuut. kii mooy jaay ginaar yi man suuf ku bëgg ginaar yu seer mën nga koo woo. ginaar yu seer. ce qui ce qui fan kii mooy Ameth Ndiaye ma wan leen ko yéen ñi ko mosul gis ci TikTok bi sama jeune frère la quoi kii moo topp si man mooy Ameth mooy transporteur bi quoi xam ngeen booy bi kii moo doon xeex mooy Pa Ale moo doon box moom la waa ji doon dóor coup yi kee nag mooy Mohamed moom dañ koo woon ci box bi ah c'est mon fils mais dañ koo dóoroon dóor yi métti kii amoon na victoire kii tam moo doon wax sànq te mi ngi gërëm waat yow kii mooy Cheikhou Babacar ah. Eh, ana Papan Papan kay toog ni première partie bi Modou wax na tuuti ci yonent bi toogal nit ñi defal la nga rek nga waxaat ci yonent bi tuuti Pape kay toog ni non na toog ni wax tuuti ci yonent waa tuuti toog nga lay